boo ñu xoolee xam ne ñu ngi ci diwaanu Pikine Daaru Xuddoos ci daayira bu mag bi nga xam ne mooy daayira bu Mawaayi bu Xuddoos nekk fii ci diwaanu Pikine Daaru Xuddoos nga xamante ni bés bi nga xam ne mooy gàmm gi at mu jot yàlla dogal na ñun ba ñuy doon ndaw ba tey di fi gis bés bi ñu ko fay tàntal yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam te ñu ko fay def ak njabootu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lañ kon muy fàttaliwaat ni gàmm day bés boo xamante ni yonent bi tëdd bi alayhi salaatu wa salaam mooy doon bés bi nga xam ne mooy gën a juddoom kon yàlla na àdduna wërgal kam saa su ne fenn fu ci ne fu ci ab jullit war a mën a ne ku dul jullit sax war na yell na ci muy bàyyi xel bés bi nga xamante ne mooy bésu gane ak juddu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax kon bu ñu fi taxawaatee tey mbégte la ñuy am kontaante la ñuy am gannaaw bi nga xamante ne gis nañ suñu doom suñu jigéen suñu jarbaat mu bee fële nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy ca Géejawaay ca Madinatul Munawwara ànd fa ak suñu mbokk xaadar yi ñoom it ñu doon yëngu ci wàllu tabala ba gis ngeen ko ci jamono bi ñi ngi fi nga xamante ne mooy Pikine Daaru Xuddoos ci waa daayira moom ay bu Xuddoos bi nga xamante ne nee naa ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ba léegi ñi leen di bàyyi xel di ci xam di leen ko xamee di ci ànd ak ñoom liggéey bu sëral bu mujaay bii ni ñuy def rek mooy dañ leen di bàyyi ak caméraman yi ñu jël ñun li nga xam ne mooy image ak njàngum xasaay yi bu ñu noppee daal di programme ndax nee naa leen tey libar Pikine Géejawaay Parcelles Caaroy Yëmbal ba Kër Masaar incha allah rabbi fas nañ yéene gox goxaat yi fasanti ko lu fa xew ci bés bi rek danañ ko fas yéene génne dëkkal ko téléspectateurs yi nga